asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndigal bàyyi ko na ci xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla fi yàgg lool ca ànd ak wér jaar ci sëriñ Abo Mbacké mi ñuy xoole tey jëmmi Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla ko yàlla dooli tawféex wàcc ci seen soldaar ba seen jàmbaar ja di sëriñ Cheikh Anta Mbacké moom Serigne Modou ya ak mbooleem njaboot ak sëñ Modou Rokhaya gépp waaye tam ci teewaayu sëriñ Modou Mbacké moom Serigne Abdoul ak mbooleem njaboot ak sëriñ Abdul Wadud gépp mbokk yi su ngeen gisee suñ teewaay ci jamono jii ak waxtu wii ngeen xam ni ka daan xewle xewleeti na mu di jàmbaar lislaam ji di sëriñ Fallou Gala Sylla liggéeyaa konu seexul xadim xaadim rasul bi nga xam ni at mu jot day woote cant nda la in sàkkartum la asidanakum kan lay sant sëriñam ba wasilaam wa yaakaaram ja di sëriñ Modou Rokhaya yàlla nañu ko yàlla fayal waaye nag ci teewaayu mbooleem njaboot ak sëñ Modou Rokhaya gépp moo tax nag tey jii ñu teew at mu jot nag bés bi daan am koo xamante ni moom lañ ko tuddee ren jii nag mu tuddee ko jàmbaari Serigne Touba jooju nga xam ni moo di sëriñ Abdoul Wadoud Mbacké moo tax nag ñu teew fii ci ëttam ab xalifaam toog nii ak njaboot ak Serigne Abdoul gépp di Serigne Modou Mbacké ngir woote woote boobu bis bi tam sëñ Fallou Galas mi nga xam ne ni da dara jaale Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye tam marraine bi moo nekk ki nga xam ni yàgg na ko doon di xaritam di wëllëreem di léppam di soxna Mominatou Kebe mooy marraine bi waaye nag am na ay invité d'honneur yoo xam ni at mu jot leen di invité ci bés bi ñu tàmbalee ko Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke Serigne Abibou Mbacke moom Cheikh Mouhamadine Fadil Mbacke Serigne Cheikh Thioro Mbacke député à l'Assemblée national moom tamit ci invité d'honneur yi la bokk naka noonu itam Serigne Cheikh Bara Ndiaye borom def gis moom tamit ci invité yi la bokk waaye itam soxna Fat Dieng di soxna ci ki nga xam ni moo di Serigne Mboup moom itam ci invité d'honneur yi la bokk waaye itam soxna astu Mbàkke Baali moom soxna Baali moom soxna may Maymuna Mbàkke ci invité d'honneur yooyu la bokk kon nag muy xam le ni bés boobule bisub sant la bisu ñaan la bisub fàttaliku sëriñ Modou Rokhaya la suñu xëyee daañu fa amal njàngam alquranul karim xasaayiti si Ahmad Bamba xaadim rasul istixfar salaatu ala nabi basmala suñ demee ba bëccëg ñu bendeel mbokki taalibé yi julli su demee ba ginnaaw tàkkusaan si nag sëriñ Gànna Mesere Maxtaar dana fa def waxtaan moom fa baaxoo def at mu jot waaye tam mbooleem ñi nga xamante ñoom la tuddee bés bi ak marraine bi ak ki nga xam mooy parrain yi daañu teew ñu def cérémonie officielle bi ci teewaayu Serigne Fallou Gala Syll ak ki nga xamante ni mooy njaboot sëñ Modou gépp ngir woote woote bu am solo boobu nag dañuy njëkk a jébal kàddu gi nga xamante ni moo di Serigne Balla Gueye moom Serigne Daara mooy wax ci turu alxuraan ji ak sëñ Daara yi ak nan fa fas yéene jànge alxuraan ja ginaaw bu ñu paree jébbal kàddu gi Serigne Mbacke Madina moom mi nga xam ne mooy wax ci soldaaru maam Cheikh Anta Mbacke di Serigne Cheikh Anta Mbacke ginnaaw kàddu yooyu nga xam ni ci sëñ Mbàkke Madina lay tukkee ñu jébal kàddu gi ki nga xam ni moo di sëriñ Modou Mbàkke di xalifa sëriñ Abdoul Wadoud mi nga xam ni moom la sëriñ Fallou Galass Syll tuddee ren cant gu am solo gi nga xam ni delloo buum ca boy bay bala waaye itam fàttali mag ña ak seen taxawaay ak nekkin wa diggante maam Cheikh Anta ak sëñ Afe Anta moo tax tey jii dana delloo si waat diggante boo bële kon du def la may yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Balla sëriñ Balla bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi comme ni ko sëriñ Moustapha Moussa joo waxee léegi rek bis baa ngoogu sëriñ Modou Rokhaya ku koy cant di ko fàttaliku alxuraanu karim moo ci njëkk moo ci mujj ku ne xam ne alxuraan moo nekkoon léppam waaye fàllu mi koy woote si ngalas bàyyam nekkoon sëñ daara jiite woon njàngom daaru salaam ay ati at kon ñu woo sëñ daara yëpp daaru salaam ak Touba ni ko baaxoo daan defee rek kenn ku nekk teel a ñëw ñu mut ñëw nekk Touba te soreet ñu jàng lim bi incha allahu taala ñu jëm ñu ko jébbal suñu demee ba ngoon sëñ fal dañ ko joxe lim bi mu sant mboolem seen daara incha allah nañ ko daan defee ku ne xam ne si mundu roqee daaraa nekkoon mbiram waaye alxuraan ka sax li kat taxaw na daara yi baree bari yoo xam ni daara ji ëpp doole Daaru Salaam moo joxe pàkk moo taxaw daara ji ba daara ji ni mu mel kon kooku bisam yaakaar naa jëmmi alxuraanu karim moo ci war a njëkk ci war a mujj kon la 11 février incha allah ngi woo ñëpp seen daara yi sëñ Xaadi Jaxate gi na rabita bi waaye sëñ nga xam ne ko sax moo ko jox sëñ Xaadi mu yor liggéey boobu ñoo ngi ci woo rabita bi ñoom ñëpp waa daara kaamil daaru salaam ak bu Tuubaa ñoom ñëpp waa njaareem waa daaru Moxti kenn ku ne rek sëñ Fallou wax na la nga bàyyi xel njàngum kaamil mi yéen a yóbbu sëñ Mudu Rox ak sëñ Abdu Wadoon mi nga xam ni moo dara jaare bis bi lépp nekk rek si nga fee ak si gaawaan kon ñu ngi ci woo ñëpp di leen bàyyi loo xel leen 2000 2000 24 bi incha allah taala ci 11 février Darou Salaam ko sëñ Fallou Galass Sylla di rendre hommage ak di fàttali ko sëñ bi roxe mi nga xam ni moo ko defal lim am lépp ba mën a jox so kenn ku nekk ci gars yi baax yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu euh, di leen siyaar yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp euh, di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéen yi am ci liggéeyal sëñ Tuubaa yéen yi am ci liggéeyal lislaam lépp sunu borom defal ko ci lu kawe njortam euh, di ñaanal Cheikh Abou Mouhamad. mi nga xam ne mooy kilifa kër sëñ Modou Mamoun gépp suñu borom yàggal ko fi moom itam te wéral ko eh, di ñaanal Serigne Cheikh Anta mi nga xam ne mooy kilifa kër sëñ Modou gépp moom it suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko eh, ñuy wax ci kàddoom ak ci ndigalam eh, ci di di leen fàttali bis bi nga xam ne moom la Serigne Fallou Gala Sylla baaxoo def at mu nekk mu di ci fàttaliku Serigne Modou Rokhaya ak di ko ci ñaanal di ci ganale tamit wasilaam ba ak sëriñam ba ñuy wax ci kàddu sëriñ bi sëriñ bi ne mi ngi leen ci woo yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yépp bëgg na képp koo xam ne ko aju ci kër gi nga wala képp koo xam ne am mbégteem sa mbégte la bëgg na nga ñëw ànd ak moom bis boobu eh, nee na tamit mu ngi ñaan képp koo xam ne eh, foo mën a nekk rek nee na nga def ay dog eh, yéene ko Cheikh Mouhamadou Roqe ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi siyaare suñu mbokk mi ñu dendal muy sëñ Modou sëñ Modou Mbacke ndax ren ak doolee ko daf ci am ndax ak jokk bokk akuk yaatal diggante sëriñ ab Abdou Wudoot ak sëriñ Modou Roqee kenn ku ne xam na ne ñoo bokk sëñ Afia ndax sëñ Afia ak sëñ Gaawaan ñoo bokk lépp ren ñu tudde ko sëñ sëñ sëñ Abdou Wudoot loolu tamit ak dolleeku la ci bis bi kon sëriñ bi nee na eh, bis boobu daal bëgg na ko ànd ak bokk yëpp waaye bëgg na ko ànd ak bokk taalibe yëpp ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu ci jàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin mi ngi ci yow mbokki taalibe yëpp ak seex si ak soppe yëpp ak daayira yi aju ci yëpp sëriñ bi nee mi ngi leen ci woo bëgg na ngeen ñëw ànd ak moom bis bi ku ci teew nag yal na sunu borom faj sa aajo ci barkeb Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala man ittafaxa al arabu bi aminihi qabla risalatihi wallazi buisa li yutammima makarima al axlaaqi sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp ci nuyoo ba gën a tedd nuyoo ba gën a màgg te booy nuyoo lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci waajtaayu bis bu tedd bis bu màgg ñu di ko defal suñu waajur sëriñ Mamadou Rokhaya Mbacké mu suñu maam Serigne Modou Mamoune Mbacké koo xam ne nag ci njabootam la bokk di lépp ci kër gi seey ci muy sëñ Fallou Gala Sylla nga xam ne niñ ko waxee sànq daan na ko def di ko màndargaal di ko tudde ay kilifa bareen ji nag mu tudd ko suñu waajur Sëriñ Abdul Wadoud tudd gi nag moom waxal ma boppam sabab yoo xam ne bokk na ci la tax te mooy wax na ma ne mas naa toog ak sëñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké muy wax ak moom ci ay niti boppam yi ko gën a jege wala ci ñenn ci ay niti boppam yi ko gën a jege am ca ñum ca tudd ñam ci tudd nag sëñ Abdul Wadood ca la bokk te loolu man mii am naa ci firnde ndax sëñ Maodo Roxee ci boppam ma sama waxal boppam ne ma diggante Daaru Salaam ak kër sëñ Afia day benn ëtt rekk la kon Sëriñ Tuubaa moo yaatu ba kenn ku nekk mu defal la loolu lay sëkk ba tax na mën ngaa ñàkk gis sa morom waaye benn ëtt rek la mu tegal ma ci nag lu mel ni lii sëñ Fallou dox tey mu ne ma waaye day sa baay day àggoon naa moom foo xam ne daan nañ daanaa toog at mu nekk woo sama rakk yépp ñu àndandoo dem njaareem yen yendu jul ko ba ngoon ñu waxtaane bokk gi dellu si kon tey dafa mel ne loolee sëñ Modou Rokhaya doon jëmbat moom ngay jéem a suuxataat ñu am ci mbégti mu rëy rëy rëy rëy mbégti mi nag mi ngi tàmbalee ci mboolem suñu kilifa yëpp la ko tàmbalee ci sëñ sariwu Mbacké mu ngi xam mooy xalifa sëriñ Afiyé Mbacké waaye ak suñu waajuru bopp bi lépp ci sëñ Abdoul Warad muy sëñ Moussa Moussa Abdoul Akram waaye itam suñu waajur sëñ Abo Mbakke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Mamoun Mbakke te fu ñu toog dafay mel ne moom lañ fa toogal kon ñu jàpp ne fii ñu toog tey pàkk bii ci biir kër maam Anta Ndiaye Mbakke maa ngi jàpp ne man maa ngi wax ci sama kàddu bopp waaye ci làmmiñu mboolem ñu askanoo ci maam Anta Ndiaye Mbakke ci lay waxee. kon di bu rëy ci yoonu murit di bu rëy ci lislaam waaye di bu rëy nag lool ci kër sëñ Abdul Wadoud ñuy ñaan suñu borom ñu àgg ca ci jàmm ak salaam sëñ Fallou suñu borom defal ko ci ndam lum mu ca mas am yàlla ko bii ëpp ci sayir ak ci baatin te rafet na ci njort bu baax ndax niñ déggee li koy laytaay rek ci alquran jeeg istixfaar yeeg salawaatu ala nabi loolu daanaka doy lu mën a doon di delluwa dolliwaat ñaan suñu ñaari waajur yooyu mu sëñ Moodu Roxaya Mbàkke ak rakkam ji sëriñ Abdul Wadud suñu borom dolli leen ay leer ci barzaxul mahamadiya barkat Cheikh al ñu ngi ci woo nag mboolem kuy dégg suñu kàddu rek nag waaye njabootu moom Mamadou Farmata Mbàkke itam dañu xam ne fii ñu toog ñoom lañ fi toogal mu sëñ Abdul Akram mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Moodu Farmata Mbàkke tey ak sëriñ Cheikh Mbàkke Ndiine ak mbooleem njaboot sëñ Moodu Farmata yëpp du soññaat bu baax nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkoon kër sëñ Abdul Wadoot eh, góor ak jigéen bay wuñu kenn dafa mel ne bu fekkee sëñ Abdul Ahad teew na teewaale na di des yëpp ci njaboot gi waaye bu dee waa kër sëñ Moodu Roxe itam bu sëñ jiili teewee sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke Madina teew dafa mel ne teewaale lañ mboolem njaboot sëñ Moodu Rokhaya gépp ñun ñii teew buñ teewee teewaale lañ njaboot Maamata Jaay gépp loolu mooy li nga xam ne ci leen jëm du ñaan suñu borom ñu yóbbuñ jàmm ak salaam bi baraka Xadim Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Moodu Mbàkke xalifa sëriñ Abdul Wadoot kon nag mbokki jullit di mbokki taalibe yi woote baa ngi noonu sëriñ Fallou Galass Syll ne bàyyut bàyyit fenn bàyyit ñenn njaboot ak seexul xadim gi tàmbalee ko daara xudus kër seex Moustapha ba ci kër seex Mouhamadul Moutada kër soxna Faat ji ba ci kër soxna May mbooleem seex yi àndoon ak Serigne Touba Xadim Rasoul ñu ngi leen ciy woo képp koo xamante ni bëgg ngaa lebal Serigne Fallou Galas Serigne Fallou nee na nga lebal ko ci bés bi képp koo xam ne mas naa lebal itam nga fay ko ci bés bi ndax amul ku may sëñ Modou Rokhaya moom lay waaje moom lay wàllee bis bi nag mi ngi tolloog fukki fan ak benn ci weeru février yi ñu dëgmal ci Touba Daaru Salaam moo tax ñi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn sëriñ Fall ne mi ngi ci woo mboolem ay mbokkam askanu Tayba ak askanu Longoor ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy woo ndax xam na ni bés bi seen bésa képp ku mas a lebal si rek sëriñ Fallu ne mi ngi leen ciy woo waaye itam ñi nga xam ñooy presse bi sëriñ Fallu ne mi ngi leen ciy woo bàyyiwut rajo site internet ba ci télévision bàyyiwut kenn ba ci journaux itam ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp bàyyiwut kenn ndax sëriñ Fallu kenn ku ne xam na ni ci biir liggéey bi la bokk waaye itam boot na mboolem presse bépp tette na leen ba kenn ku ci nekk tey mën a am si yëfi bopp kon nag woote baa ngi noonu sant Serigne Modou Rokhaya la ca Daaru Salaam fukki fan ak benn ci weeru février ñu ngi woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.